ah sama gars yi xam ngeen ni vendredi ren herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay. asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen sama gars yi ay ca ñu defar lu neex lu yomb loo xamante ni ginaar mën na ko defar crevette mën na ko defar waaw ndawal sax war na ko mën a defar waaw kay mu nekk. Euh, pule au coco yoo xamante ne euh, la mu saf ëpp na ñu ànd ci toujours ak Reen Herbes Épices waaw diffusion yi nag léeg-léeg ñu jàllale ko vendredi waaye nag bu ñu temps bi dabee ñu pousse ko samdi rek def ko reeru samedi wala ñu def ko añu samedi donc idée de recette la euh, bu fekkee moment bi nga xamante ni ñi ngi dugal vidéo bi yaa ngi laam-laamee di xool lan ngay togg waaw wutal sa ginaar poulet fermier tey poulet fermier la laa jël am naa fii céleri poivron euh, coriandre bi nga xamante ni du ci mën a ñàkk mooy persil chinois bi parce que moo ciy def goût bi euh, épice su curry bi nga xamante ne ren herbe da koy defar Euh, am naa fi lakk ginaar leedu koko euh, ak euh, tomate fraîche tomate fa tomate far farci boo xamante ne dañ ko dagg rek xolli ko nag mooy gën épice curry lakk ginaar nokkos ak épice légume bi nga xamante ne moom la Reen Herbes et Épices teg tey def ci andi ko ci recette bi voilà tey moom la ñuy utiliser ci 20 variété recettes yi nga xamante ne Reen Herbes et moom la leen di proposé voilà comme ni ma koy waxee saa su nekk rek idée de recette la dañuy njëkk xorom ginaar bi voilà daal di jël euh, épice nokkos bi def ci def ci lakk ginaar euh, daal di dëbb nokkos bi bu ñu dëbbee nokkos bi nag parce que nokkos bi moo ñuy servir de base moom la ñuy euh, sàppale moom la ñuy rosé parce que soxlawul ñuy def soble comme bu ñuy defar yaasa voilà dafay xaw a laale ak recette indienne politique politique masala bi nga xamante ni euh, ñoom dañ koy faral di defar voilà ñeex bu far ngay am mais la muy neex ak la muy saf moom boo ko essayé wul doo ko xam laaj euh, jinjeer poivron rouge poivron vert céleri moom laa jël dëbb ko voilà ñu daal di jël nag sunu nokkos bu buñ ko dëbbee ba mu mokk euh, def ko ci poulet bi yëngal tuuti rek voilà parce que dañ koy njëkk saaf ba mu doore voilà am na ñoo xamante ni dañuy jël rek def ko ci cin bi noonu mais nag euh, <laughs> man taamu naa ginaar boo xamante ni dañ koy saisir ba sukki euh, concentré wu ci benn place voilà ba mu croustillant nga daal di seppi boo koy dugalaat ci soos bi tam nga dugalaat ko ci soos bi gis nga boo seetloo ginaar gi dama ko fejet def ko ay dog yu ndaw voilà benn poulet bu poulet fermier bu mag sax la ma sama turki yi jaay voilà bu leen fàtte Reen Herbes Épices mi ngi waajal feetu fin d'année waaw du yomb de ngeen xam ngeen ni eh, Reen Herbes Épices ak Alphie Cuisine du yomb benn yoon surtout période fête yi nga xamante ni Idrissa Seck gars yi dañ koy xaar lii ci dessert lii di amuse-bouche voilà lii ci eh, recette de fête eh, lii ci idée de idée de recette voilà parce que lii ci ay waxtaan Euh, épices et légumes bi gis nga moom laay def ci sama ñànkatang dama def tey ñànkatangu célibataire waa di nuyu sama étudiants yi nuyu célibataire yi nga xamante ne dañuy seetaan Alphie Cuisine sama cuisinière rek laa jël tey wax dëgg yàlla defar sama ñànkatang xam nga léeg-léeg euh, jot dafay manqué voilà ngay course avec le temps di daw euh, léeg-léeg nag genre appareil yi dafay noppale nga xamante ne dalay toggal ñànkatang da ngay jël ndox mi raxas sebet sa ceeb ba mu set def ko ci biir daal di def tuuti dëwlin man damay faral di def euh, épices u légumes def persil euh, def xorom dugalaat ko ci biir daal di euh, yëkkati bouton bu rouge bi rek bu bouton bi wàccee rek nga xam ne ceeb bi ñor na waaw koy genre invention yi da ciy baax parce que gain de temps la lay may léegi seppi naa li nga xamante ne premier round bi duggoon laal ci épice u lakk ginaar waaw day saf-sap daal di jëlaat épice u kari bi épice u kari bi lu ne la nee naa la dañ ko defaraat seetal boobu couleur mu koy jox te kari bi ça se marie très bien ak lait de coco bi ak jinjeer bi nga xamante ne moom la ñu dëbbaale ci nokkos bi. voilà coriandre ñu teg nag ngeen koy gis ne le bu leen ko fàtte parce que moom mooy andi njambaxtaan bi nga xamante ni moom la recette soxla voilà recette bi dafa war a saf coriandre saf lait de coco. voilà nga xamante ni recette bu exotique la boo xam ne beneen goût ngay am bi ma bëgg naa ngeen essayer ko laalal laalal leen ma ko ci commentaire yi voilà nokkos bi gis nga li desoon moom laay jël russi ko daal di jël tomaate bi euh, def ko ci voilà euh, fekk na ma jëlaat ginaar bi sàppaliwaat ko yëpp laay jël sóob ko ci voilà parce que ginaar bi xam nga ni ñor bi des na voilà léegi dañ koy defaat ci cin bi buñ ko defaatee ci cin bi euh, tëj ko mayaat ko temps mu ñor waaw benn 15 minutes dina ko fa fekk avant ñuy def ñuy ñuluk ak lait ko ko bi ñu bàyyiwaat ko fa beneen 15 minutes mu ñor xom comme poulet fermier la nag du tas bu fekkee poulet locaux yi nga xamante ni mooy ginaar yi boo ko si defee en général yëngal bi da koy tas mais poulet fermier dafay maintenir euh, teneuru ginaar bi waaw seetal seetal boobu couleur lii xam nga ni saa doon l'eau à la bouche voilà bu ko defee ñu daal di tëj bàyyi ko fa ni ma wax léegi 15 minutes 77 390 69 72 fépp fu ngeen toog ci Dakar bu ngeen wootee Reen Herbes Épices livré leen ci épices yi yéen ñi nekk Europe ba léegi euh, defe naa gars yi comprendre ñu nan la ñuy def pour am ci épices yi en Europe parce que bërki démb rek dab nañ ma euh, sama benn suiveur bu nekk France bu yaayam soxla woon épices yi voilà léegi lait de ko bi li ñuy jël ñulug voilà ñulug ko daal di yëngal mu amal gamewu ñu daal di tëjaat voilà bu ñu tëjee bàyyi ko nag ba mu far waaw parce que dafa war a comporté wu léegi ci site internet bi www point tire ren épice point com moom ngeen ni dugg da ngeen koy tàppee ci euh, barre d' bi rek site internet la bu ngeen ci duggee da ngeen di gis épices yëpp bu ko defee ngeen tànn euh, remplir seen panier fay ci biir site internet bi toog fi ngeen toog ñu livrer leen loolu yomb na. xam naa dinaa mos a def démonstration bi naka la waa Europe di jëndee ren herbe parce que ba léegi question yi ñu ngi ñëw. voilà léegi nag far na citron laay def ak euh, coriandre bi mooy pince chinois bi moom rek moo ciy des voilà wisal ci kaw ba mu saf sàpp nga daal di jël sa citron jaune paccal ko ci waaw buñ fàtte citron bi nag citron bi moom boo ko fàttee euh, doo am goût bi nga xamante ni moom nga war a am voilà tombé na ceeb bi ñor euh, ñaxatan célibataire bi nga xamante ni moom laa wax léegi voilà très très pratique cuiseur yi nga xamante ni léegi sax léegi day togg ñaxatan voilà yëf ya pare na yëf ya saf na yëf ya doore na am na couleur am na goût oxo la mu neex na léwa doon jooy waaw dafa doon jooy di lekk bay jooy <laughs> xam nga ni tamit eh, togg sa doom di lekk bay jooy loolu tam jar na jar na ndam jar na jar na prix waaw mi ngoog aywa jaajëfal naa leen sama gars yi eh, bu leen fàtte ren Herbes et mi ngi pare feetu fin d'année yi eh, ci période période décembre yëpp fii ci Alphie Cuisine di leen jaajëfal et leen dox Euh, dig daje vendredi prochain ci Alphie Cuisine ak Reen Herbes Épices bu leen fàtte jël numéro téléphone yi euh, passé seen commande euh, et puis on se donne rendez-vous très bientôt jaajëfal naa leen sama gars yi bu leen fàtte abonné wu like et puis partage vidéo yi kenn du ah sama gars yi xam ngeen ni vendredi Reen Herbes Épices moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay